Eh, di yaan yàlla comme ni ko imaam waxee rek yàlla na fi liy géej eh, Sénégal moom eh, dooleem mooy solidarité parce que tey boo demee ba nekk ci yenn situation yi gestu gis ku la tane ko ñëw jàppale la et loolu moom loolu la yàlla bugg te yeneen koy def et ñii fi toog ñëpp nag ku ci nekk yor nga ay responsabilité soit nga doon président des jeunes wala nga doon président ASC e, wala nga doon imam chef notable chef église amul ken ku dess ñepp gi tok ñi diriger CLPA kep duy pêché ñepp gi tok parce que bo tané ñoñu rek tan nga dekk bi yépp parce que bima yégué nouvelle bi la leen informé né leen nak dinañ ñëw incessamment pour set nan lañuy jappalé dekk parce que mom yag nañ leen di jappalé dem eh, dem barke dem kon nak exactement firné ti ngeen lolu kon nak ci turu population bi encore une fois kon tan nañu et ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que seetaan ñu ngi leen wax dëgg waaw parce que lu ngeen am et wax dëgg dañ koy bokk voilà amagul exactement li nga xam ne lii genn na ci loxo sapku mu di ko joxe fu mu nekk ni moom teppoon sa ren jiitewu ci te am na joo xam ne peut être manoon naa ñàkk mais par solidarité ah yéen a ngi koy doxal kon nag eh, vraiment kontaan nañu parce que li ngeen joxe nii ah man na mën a mënul daj dëkk bi yëpp de waaye dina ci sol waaw parce que euh, comme ni ko gaa ñuy waxee rek eh, problème bi def bi problème bu doy waar da naan gis ko kuy am di dem géej di dimbale ay nit dama dem ba man too jaay sa marchandise parce que chinois yeeg yëpp tëj nañu nga doon pauvre tout de kon nag dafa xaw a doy waar waaw am na ñoo xam ne ñii dañ doon dimbale mais ba lii ne seen activité rek boo boo amee rek da leen war a dimbale te loolu mooy lii ngeen ut si fii tey fii amatul diw am na wala diw amul seulement priorité bi mm. c'est vrai que ñi nga xam ne ñi ñoo gën a néew doole ñi nga xam ne ñoo doon dem géej ñi ñu doon dimbali ñooy doon les prioritaires mais nag dinañ organiser wu ba kër kër goo gis ci biir dëkk bi bu dee lu mu tuut tuut di nga ko am loolu day euh, dafa bokk ci li nga xam ne ni euh, le président Macky Sall euh, wane na ko bi Covid 19 Euh, ñëwee fi ci Sénégal ba légui action euh, d'envergure sur le plan social euh, yaakaar naa ni lolu bokku na ci inspiré mais également tamit ku euh impact économique bi Covid-19 am ñu xamné la ni population yi très ñu jappalé lé euh benen bi moy point Sarène ñun dañ fi am projet bu am solo euh, projet boobu buñ koy doxal ñu nekk ci contexte bu toll nii laaj ñëw jàppale population yi fi nekk. dimbal bi mooy euh, en denrée lu mel ni ceeb euh, diwlin meew ak suukar cas communautaire yi li koy xeex mooy li ñu nekk di def nii. gis ngeen ñun ñu nga xam ne ni ñu ngi sol suñuy masque professeurs yi wax nañ nañ sol suñuy masque experts yi wax nañ ni nañ sol suñuy masque yow yaa ngi nii sol say masque ak sa collègue ñun tamit ñu ngi euh, sol suñuy masque donc nañ respecter règles yi di raxasu ak saabu di utiliser ay gel euh, désinfectant ak lépp loo xam ne ni tey muy règle de distanciation sociale donc loolu Euh, mënuñ wax lu weesu loolu ñu gën a moytu contact yi en en en groupe di euh, confiné wu loolu loolu lañu ñu war a digal population yi ndaxte euh, jàngoro bi bu kenn xeeb. waaw crise bi dafa laal secteur tourisme bu baax ku xam activité touristique xam na ni crise bi ñun la gën a laal mais dañu war a fonk gën a téye. li nga xam ne ni mesures yi nga yi président jël si wàllu secteur tourisme ak transport aérien te euh, gis naa ni euh, seen président président du conseil sénégalais du tourisme mu ngi koy rafetlu euh, di rafetlu mesures yi ñu jël si wàllu crédit hôtelier si wàllu appui au secteur aérien pour Air Sénégal AIBD ak aussi bépp entreprise boo xam ne yaa ngi yëngatu si tourisme ak transport aérien donc li des mooy ñu ñaan yàlla activités yi reprendre si li mu gën a gaaw te euh, ñu mën a jublu waat ci liggéey bi